ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi nga xamante ne si yéen suivre seen bi di faciliter la vie te nag dina indi lu am am solo mu nekk li nga xamante ne si mooy dialogue dialogue nag li mu signifié mooy jokkalante ay kàddu mën na nekk sax laaj ak tontu wala xuloo wala waxtaan waaye dialogue moom boo leen ko déggee rek xam leen ne mooy jokkalante ay kàddu ñu ngi jéggalu ci gëj def ki ñu def vidéo waaye yitte yi ak xat-xati jamono ji moo ñu permettre ñi am genn temps ngir di def vidéo mais incha allah rek vidéo yi dinañ ko yokk ba muy gën a gudd ndax bu njëkk boo leen daan seetlu vidéo yi njëkk ay 3 minutes daan doon mais léegi incha allah dañ ko yokk ba muy gën a gudd dinañ ñaan ngeen abonné ci suñu chaîne YouTube ñu leen seetaani jaral gi bu fekkee abonné ñu ngi lay ñaan nga abonné activer bi comme sa vidéo bu ndugal rek nga mën ko jot ci YouTube directement daal di bokk ci njëkk njëkk seetaan. tu me manques mais toi qu'est-ce que tu fais là namu naa la waaye yow loo fiy def je suis venu pour qu'on discute dama ñëw ngir ñu waxtaan. comment va ta santé naka sa wér-gi-yaram ça va bien et maa ngi ci jàmm yow nag quant à moi bien man moom lépp jàmm pourquoi tu ne travailles pas aujourd'hui lu tax liggéeyoo tey aujourd'hui je suis fatigué tey dama sonn Aujourd'hui, je suis fatigué. Tu es paresseux. Danga tayel. Ne te pas de moi. Bul ma sonal. Ne te pas de moi. Je te conseille seulement. Dama lay digal dong. Tu sais quoi? Je m'en xam nga lan la maa ngi dem non reste avec moi déedéet toogal ak man tu as beaucoup de défauts danga bari sikk tu as beaucoup de défauts je suis désolé maa ngi jéggalu je suis désolé mais où étais-tu hier yow fan nga nekkoon démb mais où étais-tu hier pourquoi tu me demandes ça lu tax nga may laaj loolu pourquoi tu me demandes ça je veux savoir dama bëgg a xam dong je veux seulement savoir hier c'était à la maison démb maa ngi woon ci kër gi hier c'était à la maison je sais tout xam naa lépp je sais tout de quoi tu parles yow looy wax nii de quoi tu parles tu sais de quoi je parle xam nga li may wax tu sais de quoi je parle je ne sais rien de ce que xamuma dara ci li ngay wax je ne sais de ce que tu dis je sais que pas à la maison hier xam naa ni nekkoo woon ci kër gi démb en tout cas hier ak lu mën a xew maa ngi fi woon démb ça fait longtemps que je n'ai pas vu Abdou gëj naa gis Abdou ça longtemps que je Abdou je l'ai vu quand je suis venu fois gis naa ko bi mooy fi mujjee ñëw ça veut dire une dinaa la wax benn mbir ça diir dire une chose c'est quoi lan la c'est quoi c'est Abdou qui a volé mon Abdou moo sàcc sama xaalis comment peut-il te faire ça naka la la mën a defee lii comment peut-il te faire ça je n'oublierai jamais ce qu'il m'a fait duma mas a fàtte mu ma def maintenant qu'est-ce que tu vas faire léegi nooy def je ne sais pas xamuma je ne sais pas je le dénoncerai à son père dinaa ko boole papaam non ne dis rien à son père déedéet bul wax dara papam non ne dis rien à son père je vais tout tirer au clair dinaa lépp s'il te plaît ne dis dama la ko ñaan bul wax dara moi et toi nous sommes des amis alors ça doit t'aider man ak yow ay xarit lañu kon dama la war a dimbali moi et toi nous sommes des amis alors ça doit vraiment tu es bon ami wax dëgg xarit bu baax nga je te prêterai un peu d'argent dinaa la tuuti xaalis merci pour tout ce que tu fait pour moi jërëjëf pour lépp li nga def ngir man merci pour tout ce que tu fait pour moi on ensemble ñoo far on est ensemble c'est fin dama xiif j'ai faim moi aussi c'est faim man tamit dama xiif moi aussi j'ai faim allons au restaurant nañu dem ca restaurant ba Allons au restaurant. Je rentre à la maison. maa ngi ñibbi ci kër ga. Je à la maison. Au revoir, mon ami. ba yoon sama xarit. Au revoir, mon ami. Je suis content.